cérémonie bi ñu fi dajale tey dafa nekk rek cérémonie boo xamante ni nii euh, dañ liñ ci jublu mooy di séddale euh, fourniture scolaire aux établissements yi nga xamante nii ñaar fukk ak benn lañ yu nekk ci commune bu euh, Thiès Est mais maire yi nag yàgg na séddale matériel scolaire mais ren originalité bi ci am rek mooy maire yi ñun dañoon gis ni ñi jël matériel jox école yi des fois du mat. wala lañ leen di jox du ta du bokk ak li nga xam ni moom la école yi di gën a soxla moo tax ñun ren bi ñu ñëwee euh, la commission éducation ak le doyen major ñu def ci ak le secrétaire municipal def ci benn liggéey bu mucc ay ñu invité ci les directeurs d'école euh, te grand Samba Diouf jiite ko ñu ni leen da ngeen ñuy wax yéen li nga xamante ni moom ngeen soxla ci jumtuwaay li nga xam ne moom ngeen gën a soxla au lieu ñuy wut rek ay ñëw jox leen pour te xëy na bu loolu moo indi tey euh, li composé matériel euh, scolaire bi nga xamante ni moom lañuy ñuy mu toll ci dix cinq cent cahier cent pages six mille cahier cinquante pages deux mille cinq cent vingt boîtes de craie blanche mille cinquante boîtes de craie de couleur quatre mille bic bleu ak mille cinquante bic rouge ñu boole ci aussi soixante caisses carton euh, kii carton papier A4 yoo xamante ni parce que dañuy gis ni. école yi léegi jamono dafa dox euh, bu ñuy def seen xale yi bu ñuy def examen école yi dañuy jënd papier euh, feuille ay feuille blanche di ko wala ñuy cotiser pour mën a jënd pour mën a organiser examen yi loolu nag dañu jàpp ni mais yi war na mën a am taxawaay bu mucc ay ci wetu école yi ba loolu mu dakk fi ñuy wax rek ni lii euh, mëbal la bu ñu am def ko mais du ñu yam foofu bëgg nañu au cours de l'année scolaire su jafe-jafe amaatee ci fourniture yooyu wala mu manqué wala mu am yeneen soxla yoo xam ni école yi am nañ ko ñun ñu ànd ak ñoom parce que bëgguñu rek def li ñuy def daal di taxaw parce que ñun ci école publique lañ ñu tàggate lu ñu am école publique lañ ko jëlee donc bëgg nañu école publique dellu fa mu nekkoon ba kenn du xalaat jël sa doom naan parce que école publique dafa doxul wala dara ba koy yóbbu ci beneen école li ñu bëgg mooy école publique yi nekk ay école de référence et loolu je crois que bu maire bi amee taxawaay bi mu war a am ci wetu. directeur d'école yi ak enseignants yi nga xam ni subaa ngoon bu dee bëccëg li ñuy daj ci xale yi way jur yi sax dañu ñu ko ci xale yi je crois bu ñu ànd ak ñoom résultat yi nga xamante ni nii moom la ñu bëgg a am yàlla mën na ko def ah te sànq inspecteur wax na ko résultat yooyu moom mooy mëbët bi ba tax na dañu bëgg sax léegi at mu ne ñu organiser cérémonie boo xamante ni dañ koy tuddee fête de l'excellence pour que xale yi gën a ràññeeku ci l'école bi ñu jox leen ay prix yoo xamante ni dina leen encourager su ko defee bu ko seen yoroon moroom yi nga xamante ni jotuñu woon am résultat yu gisee dina tax at yi di ñëw ñoom it ñu mën a góorgóorlu pour mën a def ay résultats euh, du ñu yam foofu rek parce que dañoo gis ni écoles yi dañuy organiser ay examen te chaque année bu ñu koy def directeurs yi ak enseignants yi ñoo ciy sonn euh, di dajale xaalis pour mën a organiser loolu ba tax na léegi bëgg nañu apporter ay subventions ci ci ci ci ci ci écoles yi ba nga xamante bi Euh, école bu nekk di ko jot ab subvention pour mën a organiser seen euh, examen examen examen blanc yooyu euh, cérémonie tey bi tamit bu ngeen seetloo bu baax dañ ko booleeg benn remise de de table banc boo xamante bi nii bëgg nañ ko def parce que commune bu Thiès dafa tabax réceptionné huit salles de classe ay salles de classe école Abdelkader la école Lamane Gomak fay école Aïdina Fall bi nga xamante ni nii loolu je profite de la cérémonie pour l' annoncer ak la fondation Auchan dinañ ko réfectionner à hauteur de 15 millions recevoir la ngeen bërki démb te confirmer confirmer nañ nañ ko donc table banc yi mooy table banc yi ngeen gis ñu jal ko ci buntu maire bi nga xamante ni salle de classe yooyu ngi tabax ak ay bureau yoo xam ne ay bureau maître lañ ak ay armoire yoo xam ne bëgg nañ ko def ci classe yooyu nga xamante ni eh, maire bi tabax na ko donc pour dire tout simplement que euh, suñu commune bi commune la bu métti commune boo xamante ni doole ji tax koo bëri mais euh, li ñuy ñàkk-ñàkk euh, ci plan fiscal bëgg nañ lépp loo xamante ni priorité la ci commune bi rek ñu taxaw ci ca poli priorité yooyu bokk na ci li gën a nekk priorité maanaam éducation donc éducation moom lépp loo xamante ni mën nañ ko ci def rek pour euh, alléger charge yi nga xamante ni way jur yi moom la ñuy jànkonteel dinañ ko def d'ailleurs ci loolu xam naa ci version français bi dama ko xaw a fàtte wax mais commune bi aussi du yam rek école primaire yi dans le domaine de l'éducation parce que euh, ñu ngi signé ay convention ak ay école de formation yu nekk ci Thiès dans le domaine de la santé dans le domaine de l'audiovisuel dans le domaine de la restauration pour accompagner élèves ak étudiants yi nga xamante ni nii bëgg nañu def formation ci école de formation yooyu dinañ leen accorder ay bourses ñii ay bourses entières ñii ay demi bourses pour que ñu bëgg a def ñu mën a def ay formations dans des domaines données pour être pour être employable sur le marché de l'emploi loolu commune bu Thiès fas yéene yéene def ko parce que ñun dañu jàpp ni éducation moom mooy la base de tout euh, message boo xam ni fu ma mësaane dem dama koy lancé man leen gis nañ fii ay nit yoo xamante ni seeni waajur amuñu woon mais dañoo muse ci seen éducation ba tey jii lépp loo xam ne naqari woon na seen waajur tey jii ñooñu xale yooyu ci njàng moo leen permettre ñu réussir. man la meilleure des investissements c'est d'investir sur l'éducation des enfants parce que waajur bu ci investir ci sa éducation doom mën na la indil ay satisfaction yoo xamante ni mosoo ko njot donc loolu rek moo tax ñuy xar suñu tànk tubéy ci éducation bi e di ci tàllal loxo nag tous les acteurs du secteur de l'éducation pour que parents d'élèves euh, enseignants directeurs d'école ñëpp ñëw jàpp ci pour que ñu jàppale xale yi jàppale njàng bi donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, di ñaan yàlla rek yàlla dimbali ñu yokk am-am gi ba xëy na déwén bu ñuy joxewaat fourniture scolaire duñ ko mën a defee ci salle de délibération bi mu nekk matériel boo xam ne du xaj ci salle. dire de venir à cette importante cérémonie est devenue une tradition cérémonie qui nous donne l'occasion de magnifier les relations entre la mairie et ses administrés, notamment dans le domaine de l'éducation. Monsieur le maire, il faut cinq lettres pour écrire le mot maire. m e. Mais il faut également cinq lettres, les mêmes lettres, qui vont aider à écrire le mot e, aimer. Au vu de tout ce lot de fournitures, nous pouvons dire que, monsieur le maire, avec l'ensemble de votre équipe municipale, vous aimez vos écoles. Et je vais vous rassurer que vos écoles vous le rendent bien. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'intervention du président du CECODE, M. Diouf, que nous remercions. Il a parlé de révolution et nous avons apprécié J'ai l'habitude de dire que pour donner à quelqu'un à boire, il faut attendre qu'il ait soif pour lui donner à boire. Et la soif présentement dans les écoles, avec les parents, c'est les fournitures. C'est venu à son temps, à l'heure. Si on attendait le mois de novembre, c'est déjà trop tard, décembre, donc c'est déjà fait. Mais l'autre chose, c'est que vous êtes parti des besoins des écoles. en consultant les directeurs en la personne du président du SECODE. Il a dit les besoins au-delà des cahiers créés autres. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère du numérique. L'Internet, l'infographie est très présente dans nos écoles. C'est la raison pour laquelle les rames de papier sont bien accueillies. Mais la révolution constituera également l'axe mis sur les tables bancs. que l'État est en train de faire des efforts pour essayer de résorber les gaps, mais tout ne peut pas être fait par l'État. Vous avez compris que c'est une compétence transférée et dans, en ce sens, euh, les tables bancs seront d'un grand apport dans les différentes écoles de la commune Est. M'adressant à présent au directeur d'école, ainsi qu'aux membres des CG ici présents. Je vais vous dire que ce que vous allez recevoir aujourd'hui, ce sont des ressources. Mais des ressources, il faut les transformer en résultat Alors, je vous engage, parce que nous sommes à Thiès, hein, et je viens d'être invité pour la première fois pour cette année scolaire 2023 à une remise de fourniture. Alors que vous, vous êtes déjà parti. Certains ne sont pas encore partis. À l'arrivée, il ne faudrait pas que les autres vous rattrapent. Ce sont des instructions. Voilà, ce sont des ressources qu'il faut transformer en résultat probants. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres de l'équipe municipale, je voudrais vous rassurer que vous avez mis ces fournitures dans de bonnes mains. Vous n'avez pas, vous avez tapé à la bonne porte parce que au niveau de la commune S et au niveau de Thiès ville en général il y a des ressources humaines de qualité ce sont des directeurs d'école et des directrices d'école chevronnés qui encadrent des enseignants engagés avec qui nous œuvrons pour chercher la qualité pour faire la réussite des enfants qui nous sont confiés. Donc soyez rassurés que ces ressources seront transformées en résultat probants. Et c'est la raison pour laquelle nous vous donnons rendez-vous à la de l'année scolaire, Inch'Allah, où les résultats engrangés par les différentes écoles de la Parce que depuis qu'on est là, on n'a jamais eu de séance de travail par rapport à ça. Mais heureusement, cette année, j'ai été convoqué ici par le SM, M. Mordiop, et le président de la commission éducation pour procéder à des propositions par rapport à ce que nous devons recevoir. je dois dire d'emblée que à, à, à, à priori, je ne suis pas déçu. Je parce que déjà, l'inspecteur euh, est entré dans ma technique pour me dire que vous êtes gâtés. Je crois que nous serons gâtés. Parce que lors de la rencontre, j'avais donné des recommandations, comme quoi que les écoles avaient besoin de rames de papier. Et je vois que dans la dotation, il y a des rames de papier. J'avais demandé aussi de façon expresse que les écoles soient dotées en craie de couleur en quantité suffisante. Parce que les années passées, en mi-année scolaire déjà, les craies de couleur étaient, étaient, étaient finies. Hein. Les directeurs qui sont là ne me laisseront pas mentir. Mais je crois qu'avec 50 boîtes de craies de couleur, on pourra faire l'année. Et le président de la commission m'avait même promis que si ça ne suffit pas, on va en fin d'année pour essayer de, de, de compléter. Parmi les recommandations aussi, j'avais demandé à ce que les écoles de la commune de thiès es soient subventionnées à hauteur de 100 000 francs par année. Parce que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés par rapport à la gestion des écoles, parce que depuis des années, inspecteurs, nous ne recevons plus de subventions par rapport à l'accueil dans les commissions d'examen pour le CFE blanc et pour le CFE mais je crois qu'avec la, la, euh, la subvention de 100 000 francs, ces dépenses seront largement couvertes. Donc, directeur, applaudissez. Non, non, non. Parce que le président Abdou, euh, Abdou Diouf avait dit que Koudef Lourey, Am c'est ça. Et le maire, cette subvention-là, moi je suis là, mais je ne l'ai jamais reçue. Donc c'est une première. Parmi les recommandations j'avais aussi demandé à ce que soit organisée au niveau de la commune de Thiès-Est une sorte de cérémonie de d'excellence en fin d'année. L'ES m'a dit bien, bien, tout à le dit que cette cérémonie sera organisée. En dernier lieu aussi, les écoles ont essentiellement des problèmes de table-banc. Je crois qu'avec l'accord de SM et de maire, nous allons organiser cette année des séances ou les écoles vont faire sortir leur carcasse et une commission va venir réparer les tablements au niveau des écoles. De ce point de vue-là, moi je n'ai qu'un mot à dire et en toute franchise, parce que monsieur le maire c'est mon ami, c'est mon jeune frère, mais je parle de lui en tant que maire de la commune de thiès Monsieur le maire, je vous dis merci. Voilà. Je Toute l'école, toute la communauté éducative de Thiès-Est vous est reconnaissante. Donc Nous vous donnons nos félicitations et nos encouragements.